Lassin, bienvenue au restaurant fast-food pâtisserie Lassin. mbokk yi yéena ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokko taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ngeen ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé supp kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte nekk ci corniche Serigne Modou Bousso lépp li nga xam ne soxla ngeen ko daañu leen ko joox ñun restaurant La Sainte ngir yeneen i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi 78 132 97 97 78 132 97 97. lépp li nga xam ne nii ñu ngi koy defar mënees koo lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba ko wax ni Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne nii dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer.